di wax ne solo su ndaje si tey ñaari volet la woon volet bi ci jiitu mooy ñi nga xam ne ñoo fi nekk nekkoon ay jàngalekat. renommé ñu xàmmee leen ci koñ bu baax ak seen patriotisme ak seen li nga xam ne mooy bëgg seen koñ bëgg seen gox ñu nekkoon fi di euh, di liggéey ba retraité ñu ne kat ñun war nañ leen a delloo njukkal sargal leen euh, jàppale leen ci li nga xam ne nii wax dëgg fa yàlla ñoom loolu lañ doon liggéey ñu delloo war leen ko muy luñ bëggoon ñoom muy éducation à travers ces dons euh, kit yi nga xam ne dañ ko doon joxe muy fourniture scolaire yi jëmoon ci ay élèves plus de deux cent vingt deux élèves ñu profitoo sargalaale ci ñooñu waaye profitoo tamit suñuy rakk jox leen ay kit scolaire scolaire bu mucc ayib nga xam ne élève bu ci nekk góorgóorlu nañ ba jox la kit complet boo xam ne yow boo demee rek da ngay daal dugg jàng kon lool la ñuy xaar ci ñoom euh, euh, euh, di leen ko di leen ci ñaaxaat bu baax bu ko defee élève ñu gën a redoubler waat d'effort ci li nga xam ne moom mooy njàng bi choix bi ko tënkee ci daanaka mouvement bi dafa yaatu ci quartier bi ndax koñ bu ci nekk am na ñoo leen fa représenté léegi choix bi ñu tënk ko ci li nga xam ne nii nag mooy koñ bu ci nekk élèves yi nga xam ne mérité nañ ko waaye koñ bu ci nekk élèves yi nga xam ne dañoo nekk ci ay difficulté wala parents yi dañoo nekk ci ay difficulté ñu accompagner leen foofu la ñu defoon choix bi. jé jéego yi ci kanam mooy que ni tey am na yeneen mbébét yoo xam ne mouvement bi mi ngi koy envisager jëm ci yeneen vole mais volet bii ñu nekk tamit muy éducation bëgg nañu accompagner suñu rakk yi ci li nga xam ne moom mooy wàllu état civil ndax xam nañ ne ñoom ñu ci bari amuñu ay kayit wala nekkuñu à jour rawatina état civil bi nga xam ne dafa amoon ay jafe-jafe muy ci wàllu tàkk kon ñu bari seen i kayit dafa yàqu ñu bëggoon leen a góorgóorlu bu a baax a baax leen euh, ci li nga xam ne nii moom mooy seen kayit ba nga xam ne nii bu ñu def examen wala ñu office bac dootu ñu fa am problème loolu bokk ci li nga xam ne mbébét nañ ko mu jëm ci wàllu éducation ak yeneen yoo xam ne mbébét nañ ko mu jëm ci wàllu éducation mais ci yeneen volet ndax mouvement bi du yëngatu ci lenn lu dul développement ak social loolu rek moom moo ko ñu teel loolu rek moom moo ko ñor. Euh, valeur financière u kit yi donc munu ma la wax exactement fii ñaata la parce que il y a le trésorier il général ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo ci doon liggéey mais li ma la mën a wax ba démb euh, ci suba. li ñu dépensé gul matoon na six cent cinquante sept mille su ma juumul ba démb ci suba te jàpp naa ni yeneen charge yi nga xam ne waroon na ñëw par rapport ak la cérémonie et autres loolu ñëwagul woon loolu daal moom lañ xam ne moom lañ mënoon a wax ci li nga xam ne moom mooy mouvement